Elzo Jamdong ak euh, Nit Doff du talent du la dans le euh, ñu def ñoom ñaar euh, benn fusion alors ça c'est quelque chose qui a toujours depuis les années 80 à partir de 83 ci la lëkkaloo yi gën a siiw ci wàllu hip hop mais aujourd'hui sooy xool ñaam ñaar tey ki nga xamante ne moom mooy Nit Doff moom xam nañ ko c'est l'homme des grands événements les stades quand même au Sénégal et jusqu'à présent c'est le mm. seul qui le nekk événement bu mag a mag a mag au delà de ça aussi euh, ñu gis Elzo correct yaru mën li muy def talentueux am mbooloo et ça c'est très important donc ñoom ñaar ñu tase et ça donne tout simplement ça regardez zéro kii lañ doon waxtaanee bif naa le rap wax nañ fi yu ne ñi ñii defante yëpp ci rab bi tudd nañ seen tur di ngeen xaamee seen bopp. dama ci clip bi. alors <laughs> euh, ki nga xamante ne moom mooy Nit Doff donc mu nekk déjà benn dio boo xamee ni c'est deux personnalités yu wuute mais dañu am benn trait dañu am benn ressemblance mooy ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk danga aay ci ego trip déjà et euh, man su ma ñëw ci aspect vidéo bi visuel bi moom mooy da ngay gis tey par exemple un Nit Doff boobu da ko tàmmoon di gis t-shirt casquette et tout ça là mu sañ exactement mais il a compris nit dof a compris ñoom ñëpp di comprendre nañu parfois nag dafa am loo xamante ni musique da koy laaj aujourd'hui toll nañ foo xam ne euh, musique comme li ñuy wax rek style yaa xool fu la neex nga def ko bu la neex nga def ko ci sa verbe bu la neex nga def ko ci ni ngay solo bu la neex nga def ko ci comportement bi donc visuellement même si tu comprends pas ce qu'il dit il plaît parce que son costume tu vois un bel homme et cetera et tout ça là euh, Elzo tamit pareil donc forcément la vidéo elle va passer parce que l'objectif de la vidéo vidéo c'est de plaire ils ont joué le jeu c'est extraordinaire c'est du marketing après nga ñëw ñoom ñaar ci euh, texte boo ko boo xoolee ñoom ñaar ku ci nekk nu bindee nga xamante ne si tous les deux ci euh, ñoom ñaar am ñoo bokk nañ jamono ils ont de la même génération mais bokkuñu cible tu vois ñu cible boo dégloo xeetu technique euh, nu ñu ku nekk ni nga bindee technique bi nga bindee nga xam ne tout de suite y a une et ça c'est beau parce que featuring il n'est indi sa personnalité merci beaucoup loolu loolu featuring mais n'essaie pas de vous ressembler ci nekk da nga war a sa bopp sa technique bind parce que bind technique booy développé la rek am na nag technique yu général yoo am te ne façon la mu ko moo di ba bàyyi mais après yow bu la neexee a changé andi sa bindu bopp léegi après yaa koy euh, quand tu l'amènes euh, devant le micro après toi tu te débrouilles pour jox volume c'est-à-dire que moment bi où tu écorches sur les mots où sur si ça tu accélères tu ralentis le débit et tout ça donc yooyu yëpp ay technique la yoo xamante ne tey on les retrouve euh, dans cette euh, chanson yoo xam ne utiliser nañ ko ma allah. c'est euh, man di dox dama koy faral di tooñ naan ko comme li waa ji doon wax yu lekk pizza ak yi lekk tànganaa moom ci ñuy lekk tànganaa la moom laa koy tooñee mais sincèrement. bu musique musique tolluwaay rek. Mhm. fi nga toll loolu ngay gis loolu rek ngay way boo tollee ci ay milliards mënuloo way ndóol. dëgg la xamoo ko xamoo ko. xamatoo donc ku ci nekk la ngay dund rek la ngay way. mais mais noo gisee way bi yow Diamane. waaw top euh, comme ni mu nga waxee euh, ñaari artistes la yuy dégager plein d' énergie ak beaucoup de personnalités Elzo comme ni Dof donc euh, ay nit la ñoo xamante ni. ñu ngi yóbbu nañ musique Sénégal euh, sénégalaise bi fu sori ñu dof ki remplit de quasiment tous les stades yëpp donc euh, mu nekk benn gars bu cool contrairement ak ni ko nit yi di gisee nag ah. cool contrairement ak ni ko nit yi di gisee moi je le connais personnellement mais c'est un gars. ouais il ah, euh, et puis il est en plus dafa il investit beaucoup sur ses fans. il a trop de temps pour ses fans. dafa am rek le temps mu tontu commentaire par commentaire c'est magnifique sincèrement. mais moo waral tout le temps moo waral waaye moo waral bi mu am ak fan sam yi c'est du tàkkam lu kenn en fait. c'est c'est un amour ne doon moo waral à chaque fois bu dell. moom rek a ko amagum daal et ça c'est show of the year benn ak ñu rab bi di toll sa fait presque plus de man lu bon bon xanaa dox naa vingt cinq ans yi donc ba léegi def ñu loolu euh, euh, loo xamante ne euh, stade Demba Diop moom rek moo koy feesal mais dama bëgg rek andi benn pour la histoire pour kii avec le rap mm-hmm. c'est extrêmement important mm-hmm. rap bi muy daanu ci la businessman aux États-Unis euh, ni comment faire que après public en euh, public enemy yooyu noonu c'est des années quatre vingt quatre vingt six sept ne woon on n'arrive plus à vendre on arrive les gens n'écoutent plus nos mm-hmm. la lim jëli waykat yi. Mm-hmm. ñu dem comme ça léegi ñii xam ñooy neexal way baat dafa neex anday harmonie kërëb kërëb ñoom ñi profité ci jàllale seen message dëkk bi dafa metti dëkk bi la euh, sabañ la benn huit mesures ñii ñu ñëw way mu neex donc finalement le rap américain à 90% et sur les épaules de ce qu'ils waaw soul bi R&B et tout ça là euh, tax tey bu ñu amee chance tey par am ay jaaman mm-hmm. a compris mm-hmm. boo xamante ni muy mm-hmm. que mooy avantage bi am ñoom un chanteur peut rapper Fada bu rabee ngawu foog am nañu loolu mën nañu ko donc le rap a de ces gens toute donc on va consommer et continuer